salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax tey nag dañoo déplacé wu euh, ñëw fii di Walfadjri seet suñu bon confrère ñu koy wax Cheikh Tidiane Gomis nekk un journaliste sportif euh, mu nga xam ne mi ngi ci wàllam di ko bay waaram macha allah il n'est pas présenté gis ngeen seen sorti dernièrement donc ñu seet ko ci une heure bi maa ngi lay nuyu camarade. waaw maa ngi lay fay. di lay fay ci jàmm ak salaam nag. Mhm. yàlla nañu yàlla euh, may jàmm lépp lu ñuy wax fii rek na doon dañoo jóg rek pour defar. waaw ñu tàmbali nag euh, ak euh, xew-xew yi nga xamoon amoon na biir Walf ñu nangu seen licence daat koy tëj ngeen gis mouvement d'humeur yi nga xam ne amoon na fi moom mu nekk agent nekk fii ci biir Walfadjri ñu koy laaj loolu nan la ko dundee woon. waaw xam nga ci sama qualité de chef de desk sport. télé bi ak rajo bi mu may permettre <clears throat> tey jii man ma wax euh, ci li nga xam ne euh, moo fi xewoon mu nekk benn xew-xew bu metti ça été très difficile xam nga euh, média man dama jàpp ne que retirer ay licence ak sunu démocratie fu mu tool loolu vraiment wax nañ ko dépasser dañ ko war a dépasser dëggantaan ba tax na parce que euh, ñun ñëpp ay responsable lañu koo ci gis fii muy même euh, le stagiaire de il est il responsable comprendre ba tax na euh, euh, yenn jalgate yi dañ koy moytu. lépp lu yoonu euh, maanaam journalisme di wax di def ñun loolu la ñuy def comprendre nga loolu moo nekk loo xam ne euh, euh, ci loolu la ñuy dox ba tax na bu demee ba loolu am day nen mbetteel vraiment nekkoon na nekkuma fi woon sax maa ngi woon Abidjan mu nekkoon loo xam ne metti na ma lool parce que bu ma déggee nit yi di ñëw ba ci man di may massawu journaliste yi di may massawu nit du ñëw di waxtaan ak man di may naan eh, waaw gumis masse nangam nangam parce que ils avaient peur dañu ñoom dañu def seen place dañu teg seen bopp sama place xam nga parce que loolu ku mu dal ay père de famille lañu. Mm. ay mère de famille lañu ay ñoo xam ne vraiment waaw kon nag ñooñu nag eh, ñooñu ngay gis noonu eh, nekk ay nit yoo xam ne honnêtement. honnêtement euh, loolu am man defe naa ne euh, il faut que ñu dépa ñu dépasser loolu. dépassionner euh, li nga xam ne moom mooy le débat politique parce que c'est la politique moom mooy gouverne dëkk bi. ñu gis tamit ay journalistes yu ñu daal di xoqatal ci terrain bi ñu doon def seen ay liggéey yow en tant que aîné en tant que koo xam ne yàgg nga ci milieu bi loolu tamit lu ñuy ñaawlu la. waaw xam nga xam nga leen dafa am il faut ñu ñaawlu ko. parce que mooy li ma la wax sànq dafa dépassé loolu dañ ko dépassé. mais si Sénégal dina dépassé loolu. mais il faut que nag ñu dem ci loolu. tout le temps il des dialogues entre les hommes. non non gis nga euh, dialogul tappale yooyu la ñuy bàyyi nag jaloog day nekk dëgg. Mm-hmm. man bu may dialogue ak yow dama lay wax damay sincère ak yow. Mm-hmm. yow nga sincère ak man. Mm-hmm. waaye dialogue boo xam ne man du ma sincère yow mii tam doo sincère dialogue yi ngay gis yëpp benn sincère wuti parce que am na lu ko lal am na dafa am loo xam ne nit ki ay calcul la politique calcul la loolu moo tax mu bon intérêt ku nekk day xool sa intérêt bopp mais bu ñu ko tegoon ci yoon respecter règles yi mais lépp du am. waaw loolu parenthèse la woon rek ci waxtaan bi nga xam ne dañ ko war a amal ak suñu camarade comme ni mu ko waxee ci politique euh, loolu parenthèse la rek dañ politique la tuuti rek maintenant on va parler sport. comme wax nga ko sànq xew-xew yi bi mu fi am yëpp fekku a fi yaa ngi woon Abidjan. Mm-hmm. ci kan bi nga xam ne euh, Côte d'Ivoire organisé woon ko Côte d'Ivoire daal di organiser kan bi jël ko ci kanamu ay équipes yi nga xam ne ñoom lañu yaakaaroon ne ñooy équipe phare des équipes qui n'ont pas fait bonne figure. Mm-hmm. loolu euh, lan moo leen ko may. c'est un bon champion l'équipe. kan l'équipe de la Côte d'Ivoire. mais effectivement c'est un bon champion. Mm. mais c'est pas la meilleure équipe du la meilleure équipe du tournoi n'a pas gagné la CAN. mooy CAN c'est le Sénégal. ah bon sur toutes les sur toutes les lignes la meilleure équipe n'a pas gagné la CAN. et la plupart euh, quand tu es une bonne équipe il faut que nga def très attention ci loolu parce que il est rare deux fois les euh, ça arrive il faut que mu am nooy taxawee mais la Côte d'Ivoire a su. maanaam tirer son épingle du jeu Côte d'Ivoire dafa dafa dafa dafa dafa Côte d'Ivoire dafa toog ba si yàgg mu ne chance ku yàlla tàccu yàlla dal yàlla ku yàlla tàccu boo feccul dootoo fecc di moom ñoom nag yàlla da leen tàccu rek ñu fecc. sabar bi daal ko. doo dégg la ma yàlla daf leen xoolal yàlla da leen waay yow kii rek ñu dem loolu nag loolu la ñuy wax. mais ku ci nekk nag ci loolu euh, ci équipe bu Côte d'Ivoire bi ku ci nekk nag da nga ci def dara ku ci nekk da nga ci béy sa waar ñun Sénégal bu doon ñun ñi suñu équipe bi ñëpp nag buñ ci bu doon ñëpp béy nañ ci seen waar. kon waaw kon euh, ñun ñii uh-huh. dinañ nekk champion d'Afrique. c'est que ñun nag dañoo béyil am na am na ñoo xam ne béyuñu seen waar. le Sénégal yaa ne meilleure équipe la comme ni nga ko waxee léegi. c'est la meilleure équipe africaine mais meilleur troisième bi moo ko génnee ci tournoi bi lan moo euh, def loolu. entraîneur bi la. Aliou Cissé. ah waaw mais déet moom moom euh, sànq dama ne ku nekk bu béyee waaram rek nga am ndam tu as la meilleure équipe ligne par ligne tu as les meilleurs joueurs joueurs yooyu ñu wane seen bopp trois matchs. ba ñëpp gis ne équipe am na équipe ba ñëpp nangu nekk Sénégal mooy équipe bu mag waa lan moo tax wul man de waxoon naa ko nee naa leen man bu dee joueur tiituwuma joueur man kenn rek laa tiit te am na mooy Aliou loolu bett na bettuma ci moom man xamoon naa dina def toj man xamoon naa ne Aliou mii. ni ma ko gisee nii déet amul xam-xam du dem. mais amul xam-xam te indil ñu ko tamit. dama ne football la ñuy wax de gis nga football du du du du du euh, discipline individuelle discipline collective la Aliou Cissé chance bi mu am chance dafa am ay joueurs. mille bi ñuy gagné coupe d'Afrique boobu. na wax joueurs yi ñoo jéngu na wax xam nga xam nga wax bi dafa kii dama ne. maanaam daa teg ñu teggi dama ne joueurs yi ñoo jéngu Coupe d'Afrique boobu joueurs yi laaj leen après contre Guinée dama lay wax benn histoire ma lay révéler benn histoire yow mii rek yaa kii musuma kaa wax. contre Guinée bi ñu paree contre Guinée match nul boobu ñu naan Sénégal yii tey ma euh, boo ma tuddee toog dese na ko benn match nañ ma wax. vestiaire boobu géngu boobu ca juba ca vestiaire boobu lan moo fa am. lu fa am Gomis. waaw de non non c'est dama ne loolu déclic bi foofu la juge pour ñu gagner coupe d'Afrique déclic bi ca euh, après le match là après le match bi ñu ñëwee ñëpp ñëw ci vestiaire yi. waa léegi wax ñu lu fa xewoon ba ñu ne dirigeant yëpp génne leen. Mm-hmm. lu fa xewoon. joueurs yi ne dirigeant yi génne leen ñu waxante suñu biir loolu moo di déclic bi ay wax yu fort. ay déclaration yu forte moo fa am joueurs yi la. jëmale ko ci Aliou Cissé. non dama ne joueurs yi ñoo jël ay déclaration yu forte jëmale ko ci kañ. dama ne jëmale ko ñoom seen ñoom ñoom xool sénégalais yi nekk Sénégal di leen ñu ne non non. jël les choses en main quoi. jël les choses en main. d'accord les joueurs ñoo jël les choses en main. d'accord. mais c'est ça. Mhm. yaakaaroon ne mystiquement Aliou Cissé il a été parce que il s'est entêté de mettre son son cinq 2 3. yow yéen sax ngeen wax ay wax wax mystique. ah la bokk de. ak ah, koo xam ne musul xam dara yow nga naan ay mystique ban mystique yow Aliou Cissé quatre ñun tey jii dañu waxoon ne quatre fois champion d'Afrique d'affilée yow équation tactique bu ñu la tegal mënoo ko résoudre loolu entraîneur la équation tactique bu ñu la tegal mënoo ko résoudre. ah du mystique. ban mystique waaye yow xanaa yow da ngaa gëm ay mystique gi nga yow mii. yow mën ah, nga gëm naa réew mi lañ nekk de xam nga lan la dafa am ñoo xam ne gëm dañuy yàqalaatee xoolal déglu ma fii bàyyi leen te bàyyi leen di mbubboo loolu bàyyi leen di euh, kii ci loolu affaire bi du loolu affaire bi c'est ñàkk xam la daal ñàkk dama ne xam nga lan la bàyyi ay affaire mistik mistik bi ngeen di bàyyi walla di wax ay lii ma ne bàyyi leen di gëm loolu yooyu ngeen di gëm moo ñu tardel ñun ay mystique liggéey la wax soo mënul nga bàyyi keneen liggéey il faut que nit yi am xel di wax loo xam ne moo moo moo moo raisonnable li ngeen di wax ni ay mystique mystique lan kon daal ñu daal euh, waa kon kon leen musique moo moom musique moo tax ñu euh, kii ñu génne coupe d'Afrique. waaw dafa ne dañ ne am na ay ñu doon ñaan yoo xam ne pour Sénégal suux bu ñii di gas ñii di suul ko moo di. dama ne xoolal bàyyi leen seen yooyu. teg leen ko ci yoonu football. loolu moo tax may naan nit ñi. bàyyi leen ñii xam football wax ci football ñii xamul football ñu téye seen làmmiñ bàyyi leen ma loolu. d'accord Aliou Cissé. Mm-hmm. est passé côté. te du tey rek. man ne woon naa leen fii man na leen benn affaire am na yéen a ngi dem bés fi ngeen di yaakaar foofu lay tase seen yaakaar. waaw mais moom il a eu raison sur toi wala sur vous par respect bi mu gagné euh, kan kaan bi passé. lan laa la wax léegi sax parce que bi mu paree daf ne Gomis champion d'Afrique yow la waxal. waa waaw doo dégg lu ma la wax. Ah. dama ne dama ne moom bi mu waxee loolu ñi génnee kii boobu lu tax lu tax léegi nga waxuñu sama réponse yow loo répondroon. ah yow loo répondroon. am chance rek loolu laa ko tontu génne ba léegi ba gisuma gi yéen ñii ñëpp benn kii te ñaata journaliste ñoo nekkoon foofu. maanaam chance la rek moo tax mu gañe kii. ma ne yow yaa am chance. Gomis champion d'Afrique nga ni ko yow yaa am chance. yow yaa am chance <laughs> loolu lu tax génne ko te lii firnde na ko. chance du chaque jour. lay ñëw man dama laa bëgg a laaj c'est quoi ton du dara xamoon naa ne foofu ngay ñëw. waaw lan la doo bàyyi loolu. lan la. doo leen bàyyi ay kër Gomis dafa am problème ak kii kon yow boo ñëwoon Walfadjri waaw voilà léegi yow ñëwoon Walfadjri léegi boo ñëwoon Walfadjri. nga gis ma réunion euh, euh, wax responsable. non responsable. Mm-hmm. nga gis ma man ak. ni ngay defee ñoom waaw. kon léegi yow da ngay naan man dama contre Cheikh ñas man dama contre Moustapha Diop man dama kii déedéet sama dëgg laay wax li ma xalaat néew ma nag lu may xalaat jëm moo am de. xaaral bu kenn ñëwoon fi léegi ngeen nga réunion rédaction day tàng ak Gomis réunion responsable day tàng ak Gomis. Gomis kay c'est le polémiste comme on doo dégg man du ma la bàyyi lu ma gëmul du man du ma bàyyi nga wax loo xam ne ma ko. waaw boo xamee dara ma ne xam nga dara. te Aliou xamul dara. xamul dara mu koy wane. c'est que gars yi dañuy laam-laame même biir waa fédération sénégalaise bu football xam ñu pie xoolal euh, ñëpp xam nañ ne que xamul dara. Euh, euh, avant ñu tëj chapitre Aliou bu ñu la joxoon téléphone Aliou Cissé ne la Gomis Aliou ngi nii loo koy wax. maa ngi wax ak moom laaj ko. loo koy wax yow lan ngay wax ak moom. ah déedéet man maa ngi wax ak moom de laaj de non wax nii di ko xas naa ko xamoo dara yooyu yaa ngi koy wax. doo dégg li ma la wax man du ma waxantu nee naa ko ñii di ñëw ci yow. nee naa ko yow ñii di ñëw ci yow di lay naan wuy Aliou non Aliou yaa aay dañ lay nax ñooñu waxuñu la dëgg ñooñ bu ñu weetee xam lu ñuy wax xamoo daal man nag man maa koy wax ci kaw man maa la koy wax man xamul daal. sa vaar bi nag bi nga ko yóbbee Arabie Saoudite. ah bi bi ñu la vaaree ci Aliou Cissé. non tu as renvoyé Aliou Cissé ñu vaar la. waaw waaw xam nga xam nga leen dafa am. da ngay wax wax waxeet yow. de de de de defal ndànk xam nga dinaa la wax benn affaire boo xam ne moo am. Mm-hmm. Aliou Cissé il a bien négocié ba léegi néew ma que Aliou Cissé c'est fini signé na contrat dama ne Aliou Cissé bu jeexalee day dem foofu rek laa yem parce que xam nga fan laa ko teg fenn laa ko teg mooy que lu leer nañ laa am. mooy que Aliou Cissé négocié woon na euh, fële Arabie Saoudite mais da doon xaar lii da doon xaar lii loolu la doon xaar. ah wax waxeet de lañ mel ni lañ gis. waaw léegi yow bu demee euh, Abidjan bi ngeen fa nekkee y a eu une cacophonie entre la fédération et le ministre des sports Lat ay problèmes interne tu es courant de tout loolu est-ce que bokkul ci di di yàqal équipe bi. xam nga lan la bàyyi leen di wax pourtant ñoom loolu loolu yàqu ko de Aliou Cissé moo lajj. <laughs> waa ji Aliou Cissé tamit il a beau dos. et la fédération. et le ministre ma ne. ma ne ma ne moom moo lajj ca terrain ba la ñuy wax. mais attends avant le terrain il la gestion avant le terrain ma ne gestion bi man gisuma gestion boo xam ne dafa euh, dafa dafa dafa dafa kii ci euh, kii bi ci football bi. ah bon ñoom li ñu war a def def l' équipe hmm. était dans de très bonnes conditions. l' équipe était dans de très bonnes hôtel bu baax entraînement fu baax tëdd fu baax di lekk fu baax. waaw kon nag yooyu yooyu ñu bëgg a indi nag euh, def ne looloo yàq bàyyi leen loolu bien vrai fédération ay naba la ay ay naba la xamuñu dara. Euh. Lat Diop xamul dara ci ministère des sports xamul dara. te jëm sax Lat Diop moom nit ñi waa seen seen. xamul dara sport moom kii ko jox xamul dara xam na dara feneen waaye ci lii xamul ci dara loolu la. waaye nag impacté wul ci kii bi. nañu wax xoolal wax waxante dëgg. te bëgg naa nag lii may wax nii booy génnee na nga génne intégralement taab ma ngeen yéen ñii dana noonu ata ata non non non non non non da ngeen a ata parce que yaa ngi nii di nañ la eh, ah. eh, ci baax boobu bu ñu génne woon man li ma wax yëpp non non fii télé lépp la ñuy génne xanaa kay nit ñi ñoo koy jël dag dama ne kaay ma wax la benn affaire mhm. nañ ma génneel interview boobu may wax boobu ñu ma njëkkee vaar ñu naan la sama waa maa ngi koy nuyu. kan Mbaye Sène moo la vaaroo. non non Mbaye Sène vaaru ma ah. waxuma boobu. bi euh, bi ñuy naan Gomis dafa nekk Aliou Cissé. Ah, du ma sa jël coupe bi. ok boobu la. boobu nañu gën a intégral est-ce loolu rek la nga wax li jiitu ak li ci topp. waaw. acca bu ñu ko génn dañu xam ne que man néew ma catégoriquement et pourtant dans l'interview j'ai bu dee Aliou Cissé rek Aliou Cissé mii fi mu toll nii du ko dépassé. xanaa lenn bu joueur yi jénguwul nangamul coupe du fi dugg pourtant loolu laa wax ana loolu. ñu dagg loolu. waaw li leen arrangé. loolu ngeen tàmm yéen. non non bul ne yéen. yéen ñëpp loolu ngeen tàmm loolu tax ne la man li may wax nii bëgg naa na nga leer ma dama ne. waaw. Lat Diop. Mhm. ministère des sports c'est pas un bon ministre. kon nam ngeen Matar Ba wala. kan Matar ñoom ñëpp xamuñu dara. waa léegi Gomis ku xam dara. koo xam dara. waaw yow kay c'est qui le bon profil pour diriger le ministère des sports. le bon profil. waaw pour yow c'est celui c'est celui qui va koo xam dañ koy fal. dañ koy fal. mu xam dara. de xaaral dañ koy fal une semaine mu def rupture totale voilà le bon ministre am déggul baax le sport li ñuy def nii le sport bi ñu koy def nii bi ñu koy doxalee ni ñu koy gérer moo dépassé amatul ça n'existe plus du ñu avancé. kii ñëw nag def rupture totale def rupture ne lii ñuy doon daal on change tout voilà le bon ministre et il doit être quelqu'un de courageux. comme toi quoi. ah mais xam ne il faut être courageux jël ay décisions courageuses la première décision à prendre moom xam nga lan la dégg nga la loi qui régit le sport sénégalais dafa kaddu dindi ko teg benn loi bu waa léegi durée mandat yi nag ñu gis Augustin 2009 ba tey mi ngi ci. doo dégg dama ko wax Augustin cycle moo jeex comme Aliou Cissé cycle moo jeex cycle nit da ngay am cycle yow da ngay am cycle. xam nga sànq yaa ngi doon wax ci man man sama cycle léegi mu jeex bu jeexee damay abale. keneen ñëw keneen ñëw. 809 loolu laa lay wax. Mhm. cycle bu jeexee nit bu jeexalee cycle am day naan ah léegi jeex na léegi man dem naa. buñ la nee kii nga ne déet am na ñeneen ñu mën a ñëw loolu laa lay wax àdduna Augustin cycle dafa jeex. Mm-hmm. kii cycle dafa jeex. Aliou Cissé neuf ans ci kaw équipe nationale tooy na gagné nga def nga loo xam ne kenn defu ko demal Augustin def nga loo xam ne kenn defu ko ci président fédération demal waaye ñedd nguur acca na ñu ñedd rek nañ dem Sénégal mi ngi ci euh, éliminatoire yi nga xam ne euh, mondial 2026 yi mi ngi bokk groupe ak kii di Congo ñu ne xam ne moom mooy demi finaliste ci kan bi loolooy moom équipe bi moom elle sera pas de tout repos dina metti lool ci moom. ci éliminatoire yan. waaw de mondial 2026. mais mais mais mais mais mais yow gis nga ñu ñu bokkal pool. Mm-hmm. est-ce que gis nga fu ñu dem ci kii bi. ñoo gën a sore Sénégal ci kii bi loolu laa la wax. Mauritanie. loolu laa la wax. Mauritanie. Mm-hmm. ak kii ak RDC. Mm-hmm. du gis nga RDC. nañ bañ a moytu rek nañu bañ a moytu rek. waaw mais Gomis xam nga yow macha allah am nga xam-xam ci wàllum sport ci wàllum football xam nga li ma la wax donc tu es une voix pour mën a wax ci yoon bi la ñuy teg parce que ñun ay sénégalais yow ay sénégalais ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ban yoon. la équipe mën a jaar nga bàyyi Aliou yooyu yëpp nga wax ko bu ko defee ñun ñu dundaat ba euh, kii daal. waa football bi waa sport bi dañ maa diaboliser kat waa ku ñu diaboliser kat doo ko déglu et pourtant lii yëpp dama koy wax. dama koy wax kay. waaw nag ñoom ñoom ñoom. ñooy naan ñoom ñooy naan ay eh, eh, dof bi bu ngay waxati. yàqkat baa ngay waxati ñoom de loolu la ñuy wax man fan laa yàqee man sport dama ko xam dama ko dund man ñaari sportif ñoo ma jur samay mag yëpp ay sportif lañu famille sportive laa bokk lu ma xamul duma ko wax ngir yàlla ak yonente ba. ma ne cycle bi jeex na bu ñu moytul cycle bii ñu bëgg euh, kii cycle bi jeex na de. ok cycle bi jeex boobu sax la ñuy waxaat ci élimination équipe basket bi ñu ne déetawaay bi soko bi donc gestion la problème gestion la encore wala contre performance. suñu sport moo baaxul moo doxul sport Sénégal doxul ngir yàlla ak yonante ba jàppale nangu leen loolu yéen daal xam nga lan ngeen di gis. ay gagné bu ñu gagné fenn ñu ne yii affaire yaa ngi dox yow yow est-ce que le mu ngi dox malgré on est champion d'Afrique demal ci football local bi boo fa demee da ngay ñu naan football professionnel lii professionnel la. waaw waaw waaw lii professionnel la lii professionnel la ay professionnel yoo xam ne ñu ngi fayeeku quarante mille francs cinquante mille francs ah moo fi am lii football la. Augustin lan la waxoon. ne me ne me jugez pas sur les résultats de l'équipe nationale. mais jugez-moi sur le développement du football local ana. waa ban football local moo développé wu. ban football local moo développé wu. ah tamit yéen ñi nga xam ne seen xel màcc na ngeen def concertation jël ko en main pourquoi pas. kan journaliste la. Ah, mais attends journaliste. consultant sportif la lépp journaliste la. man damay yem ci journaliste. di wax sa di waxaale say kii. waaw man di di di xool di wax man journal rôle journal man journaliste laa bu jeexee. jeex nag bu leen fàtte ne xam nga yéen da ngeen def ne. journal sensibiliser. journaliste ma ne tànk maa ngi dund métier bi duma ko bàyyi. je serai journaliste jusqu'à la fin de ma et je serai je ne serai pas kii euh, euh, juge et parti bugguma ko bokk ci ay fédération comme yenn journalistes yi i tappale naan euh, conseiller. conseiller fédération nangam. non non mais Mbaye Jacques moom génn na rédaction yi. non bu <laughs> doon Mbaye Jacques waaw sama nijaay bi non non non non Mbaye moom dëgg dëgg. Mm. génn na rédaction yi mais ñi nekk ci rédaction yi dem di nekk ay conseil ay chargé de commission de communication ci fédération yi. ñoo ñooñu laay waxal mais Mbaye Cheikh génn na man bés bu ma demee nekk euh, chargé de communication fédération football xam naa sax duñ ma fa mës a fal duñ ma mës a woo. ah déedéet dañ lay fal de yow ma gis duñ ma fa mës a woo yee ñeme ñu ñu ma. Ah. yee duñ ko def xam nañ ne bu ma fa demee seen mbóot yëpp laay génne ci bi biti ñu dàq ma yëpp laay génne. parce que dara leexul fédération football Sénégal dara leeru fa. dara leeru fa. dara leeru fa fédération dara leeru fa man nag fu leerul du ma fa dugg. d'accord euh, léegi euh, Gomis euh, balaa ñuy xaw a jeexal tuuti rek gisoon nañ Sadio Mané avant kan bi la fas soxna mu ñibbisi ci kan bi gannaaw defet bi teewul mi ngi doon def ay vidéo xam nga di dund loobam quoi maintenant des internautes et des des avis extérieurs dañoo ñëw ne moom affaire bi safu ko et que na takk léegi waroon na xaar yow sa avis ci loolu en fait. xam nga il a choisi le bon moment pour se marier. non moi je dis que il n'a pas choisi le bon moment. ok parce que xam nga dafa am yoo xam ne man li ma gis ci sportif yi lu ñuy def mooy après compétition la ñuy takk wala euh, bu dee compétition bi soxee na ñëwagul waaw mais à la veille d'une compétition à la veille d'une compétition fi mu ko defee man su ma ko doon conseil dama ko ne xaaral bu ko def léegi parce que euh, maanaam. xam nga wax yi il faut nga éviter nga wax il faut nga éviter ko même sax bu di man gawuma li gars yi di wax de waaw da ko uma ay nangam déedéet déedéet man gawuma loolu mais dama ne wax yi coow li autour de ça l' équipe nationale ci moment boobu n'avait pas besoin de ce coow laa ay al euh, Sadio Mané takk na jabar jël na ko nii nangam nangam euh, mu ngi woon ñëw di nangam coow loolu. moo moom mu def. rejoindre équipe bi voilà loolu xam nga loolu. il fallait l'éviter fédération moo waroon man sax wax ak moom éviter loolu. est-ce que fédération yëg nañ ko. non mais ah dégg nga ah, ma ne yëg nañ ko wax parce que wax na leen ko. Ah. saajo wax na leen ko saajo wax na ko Aliou Cissé Aliou mënoon na ko ne booy. bàyyi ba baay ba kan bi jeex rek nga def nga takk jabar nga dem comme que yow tu es modeste war na modeste boobu euh, takkal kenn du yëg. yow gis nga cot performance ci biir ci kan bi. parce que Sadio n'était pas. non non saajo Sadio nekkatul Sadio bi nekkoon. ah c'est ça le non non non non non non bi sëy bi de déedéet. waaw je sais du bi. déedéet non Sadio Sadio de Liverpool n'est plus le Sadio d'aujourd'hui. lu tax ah no mais nit non non itam da ngay jeexal. ah dafa jeexal. non non c'est que maanaam performance boobu Sadio mënatu koo nekk. et pourquoi. non day non mais c'est ça est non mais attends. mais tolloo gu fi fenn foo xam ne saajo maane dama ne performance boobu mën na wàññeeku. dama ne nit nit rek la. ah. ma ne saajo Sadio Sadio Mané boo leen yaakaaree loolu mu leen doon defal. loolu loolu amatul. yow Messi les deux dernières années avec Barça. mais monsieur. waaw déedéet non non attends mais déedéet non kaay non kaay damay waxtaan ak yow dañuy wax football du football la ñuy wax. waaw da nga bëgg ñu wax football. waaw ma wax la football. waxal Messi les deux dernières années au sax est-ce que bokk na ak Messi bi nekkoon euh, euh, cinq cinq années yooyu derrière. mais yow fee nga may wax te kii dafa demagul fenn tamit. non doo dégg la ma la wax dama ne la Messi jàppal Messi. dama ne joueur moo demee noonu am na loo xam ne li nga mënoon noo def da noonu mënoo euh, loolu ça dépend ma ne Sa Sadio Mané il faut que ngeen nangu leen ku mën a football nag waaye nag ah football football dafa am football dafa am nu mu demee de. la jeune crème ñoom Lamine Camara gis nañ jooyam yu métti yeeg ñoom xale yi. parce que xale yi. xale yi dañu amoon yaakaar. Aliou Cissé moo tas seen yaakaar. ay yàlla baax na. Euh, Gomis waaw moo gën ci yow. kontaan naa lool. waa waaw moo gën ci yow parce que yow mi comme que da ñëw fii pour jàppale Aliou Cissé ak man mi ah kon kay ma kenn damay laaj rek. non non man dama lay wax booy yooyu Lamine Camara jooy yooyu ñu doon jooy Ah? ak ñun journaliste yi jooy ñu doon jooy. mais dinañu jooy li am ñu da li dafa metti li da nga def lii dafa neex. yow jooy nga. mais ma gomis bëggoon gis say jooy nag. ah mais non di nga jooy non on est sénégalais dafa metti yow meilleure équipe ñëpp xam ne. taxaw naan non c'est que ñu ñu ngi xam lu ñu doon xalaat. Abidjan la finale de Abidjan naka lay demee nii nangam waaye nga ñëw rek jël équipe bi kenn xamul noo ko defee. def nu la neex. nga jooy nga tas suñu yaakaar. nga jooy ku tas yaakaar du jooy buñ <laughs> tas yaakaar yow buñ tas sa yaakaar. ma jooy ba ah voilà. dañoo tas suñu yaakaar. <laughs> te moom moo ko tas macha allah macha allah waxtaan bi neex na di ko gërëm bu baax. ci bi di ko gërëm bu baax ci euh, gis ngeen idées yi nga xam ne ak waxtaan yi nga xam ne génn na fi ku ko dégg xam ne li muy wax xam na ko peut-être nag mal il n'est pas compris wala c'est un incompris mais li muy wax xam na ko. sport la bëgg comme ni mu ko waxee ñaari sportif jur ko donc macha allah di ko ñaanal gudd fan ak wér xam-xam bi gën a màcc ndaanaan gi bë gën a yokk donc di jox di dajee prochainement sur beneen euh, invité ak euh, beneen numéro sur Télé Sénégal TV